wa aasaaran jasima bokk na ci sax ci jaamu yàlla sax ci jëf ju baax dafa am njeexital njeexital gu rëy bu muy def ci doomu aadama bu muy def ci jaami yàlla yi bu muy def ci jullit gi ab jaamu yàlla bu saxee ci jaamu yàlla bu saxee ci topp boroomam loolu dafa am trace bu rëy bu muy bàyyi ci moom li muy njëkk a def mooy dawaamu ittisaalil qalb billah soo tàmmee jaamu yàlla day dem ba sa xol bi day jokk ci yàlla direct dootoo jokk ci mbindeef dootoo yaakaar garab dooto yaakaar ndox dooto yaakaar petaaw dootoo yaakaar lam dootoo yaakaar xaaw dooto yaakaar kenn ku dul yàlla ndax saxol xol dem na direct ci yàlla yàlla rekk su saxol xol demee direct ci yàlla lan lay jural fa yuti al abd thabatan wa quwa min ar rabb allahu akbar wa man yatawakkal ala fa huwa xasbu doomu adama boobu nga xam ne xolam dafa jokk ci yàlla ba xol bi jokkee ci yàlla lan la ko jural mooy mu daa di indil doomu aadama bi sabaat mu sax ne kenn am kattan am kóolute lu tax ndax yàlla rekk la lu te ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku yàpp ci yàlla fa nga jàpp ne kenn ku wéeru ca yàlla bëmax la du yomb ndax ku la bëmax doo daanu wa man yatawakkal ala fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku jaamu yàlla ba sa xol bi jokk ci yàlla noonu ngay mel kenn ngay def da woo kongu dëgër beneen bi mooy almudaawama ala al amali saaliha sababan li mahabbati rabb lil abd su nit saxee ci jaamu yàlla sax ci jëf yi baax yi loolu lim koy jural day am mbëggeelu yàlla yàlla daf koy bëgg inna allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbu almutatahiriin xoolal am nga ñaar sa xol jokk na ci yàlla yàlla bëgg na la kon ginnaaw ramadaan bu mu jeexee ñu war a am continuité bañ a deltu ginnaaw bañ a yàccaaral yaafuus jëf yu baax yañ doon def ñu ciy deltu ginnaaw mbokk yi ci yàlla ku yàlla bëgg ku yàlla bëgg lan lan moo ko deseelati la bëgg xoola yàlla ba mu ne bëgg naa ibrahim wattaxaza allahi ibrahim lan la ko jural yàlla mu ne inna ibrahima kaana umma loolu ko jural kon yàlla na nu yàlla bëgg yàlla na leen yàlla bëgg góor ak jigéen mag ndaw ku ne amiin yàlla na la yàlla bëgg mbokk yi sunu borom subhanahu wa dafa bëgg ñiy tuub dafa bëgg ñiy jéggulu seen bàkkaar wa yuhibbul mutatahirin al mutanazzihin anil athami yàlla dafa bëgg ñiit laab dafa bëgg ñuy set ci ay bàkkaar borom bi wax na ci xadisul qudsi wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil xatta uhibbahu doomu aadama bi de du deñ jaami yàlla bi di jege yàlla ci ay nawafil ci ay koor yoo xam ne naafila ay julli yoo xam ne naafila ay sarax yoo xam ne naafila zikr yoo xam ne naafila la ba doomu aadama bi jege ba yàlla bëgg ko tabaraka wa taala wala yazaalu ay yastamir tufiidu l istimraariya inna haza sabab linnajaati min alchadaid nee na continuité boobu doomu aadama di am sax ci jaamu yàlla dafa nekk sabab ba doomu aadama bi sufi mucc ci tartar yi jafe-jafe yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na li gulaam li gulaamin alladi kaana xallafahu wa ibnu abbas radiallahu anhuma ixfazillaha yaxfazak ixfazillaha tajiduhu amaamak yonent bi waxoon na kenn ci doomu baay taxam yi koo xam ne da koo toggoon ci mbaam mu ne ko ibnu abbas kaay ma xamal la ay baat wattul yàlla yàlla wattu la ihfazillaha yahfazak wattul yàlla nga fekk yàlla sawet xamal yàlla su neexee su tare yàlla xam la allahu akbar kon balaa ngay am soxla naan yaa allah bala ngay feebar naan yaa allah balaa ngay nekk ci métit di woo yàlla balaa ngay nekk ci tartar di woo yàlla woowal yàlla bi nga wéree woowal yàlla bi nga amee woowal yàlla bi nga nekkee ci jàmm soo nekkee ci tartar boo woowee yàlla yàlla wuyu la ñun nag dañ yor ay melokaan ak ay aada yu bon a bon a bon su neexee duñu xam yàlla feek noo ngi suur ñoo ngi wér ñoo ngi nekk ci jàmm suñuy poos daranki xamunu yàlla bu loolu commencé dem tartar yi feebar yi métti di nga commencé naan yàlla yonent bi nee na xam leen yàlla ci bi ngeen nekkee ci jàmm su ngeen amee métit ak tartar ngeen woo yàlla yàlla wuyu leen izan hazihi taat tan fa u shadaid gis nga topp yàlla yi ñu topp yàlla wallahi julli yeeg koor yi azaka yeeg sarax yeeg jàng alquran tudd yàlla xam nga lan la ñuy jural bu ñu amee jafe-jafe yàlla taxaw sunu wet allahu akbar min sirrihi an yustijibal an yustiji an yustajaba allahu lahu inda shadaid bokk na ci secret yi mooy yow mi taxaw ci jaamu yàlla wallahi boo amee tar-tar soo ñaanee yàlla yàlla wuyu la boo nekkee ci jafe-jafe soo ñaanee yàlla yàlla wuyu la fa yuksiru du'a fi raxa wa yu annisu lahu boo nekkee ci yomb-yomb kon mooy li ñuy wax rek jamono bi ngay am dugalal ci compte bi dara jamono bi ngay am dugalal ci compte bi soo demee ba tar-tar commencé nga delluwaat ca kont ba allahu akbar soo fa delloo nga fekk fa dara mbokk yi ci yàlla nu góor góorlu dégg nañ xista bu rëy rëy rëy rëy yont yàlla yunus keroog ba ko yàlla dugalee ca biir géej ga mu dugg ca jën ba xoolal borom bi nee na su fekkoon ne lawla annahu kaana min al musabbihina min qabl la kaana la labisa fi batni al su fekkoon ne daawul tudd yàlla avant muy dugg ci géej gi avant muy dugg ci biiru jën bi xamul woon yàlla kon bu duggee ci géej gi bu woowee yàlla yàlla du ko wuyu waaye nag borom bi nee na da doon sàbbaal loolu tax bi mu nekkee ci biir jën bi mu sàbbaal yàlla wuyu si ko allahu akbar law lawla annahu kaana min al musabbihin la labisa fi batnil xuut su fekkonte ne daawul sàbbal yàlla xamul woon yàlla yaali la xamoon nekk ci ay caaxaan kon tey bu duggee fii xelam du dem ci yàlla ba mu mën a woo yàlla waaye xelam daa nekkoon ci yàlla démb ba mu nekkee ci jàmm bi mu nekkee ci tartar xelam moom mu delluwaat ci yàlla mu woo yàlla yàlla wuyu ko yal na yàlla wuyu yal na yàlla di xettali yàlla nekk sunu wet yàlla sàmm ñu ngi jégglu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.